mu ñëw nag ci yéen sib ca julli sib nañu ngay jël julli farata di ca wax ahoudu billahi min ashaytani rajim mbaa neneen noo musloo rek seytaane ak di ca tudd bismillahi rahmani rahim bu dee ci yoonu Malik am na nag ku siiw ci yoonu Malik ku ñuy wax almasori yi moom day wax ne moom day wax bismillahi rahmani rahim bu dee julli farata ndax ndegam al imaamu Shaafi yi daa wax ne ku waxul bismillahi rahmani rahim sa julli yàqu te Malik moom da ko sib rek yem ci du tey julli ga baax kon day saamonteeg waxi ñaari ilimaan yépp di wax bismillahi rahmani rahim ngir loolu waaye daal bu dee ci yoonu Malik moom liñ wax fii moo wér te mooy julli farata sib nañu nga wax ca ahoudu billahi min ashaytan rajim mbaa nga cey wax bismillahi rahmani rahim moo xam ci njëlbeenu fatiha la moo xam ci njëlbeenu saar wala kon nag taalibe sëriñ mag bi ci loolu rek lay tënku bu dee julli julli farata du tudd bismillahi rahmani rahim bu dee naafila moom daañ ko wax dagan na kay naafila mu wax ahoudu billahi min ashaytan rajim ak bismillahi rahmani rahim mu ne sib nañu nga kàbbar kàbbaru almal laata ngay jàng faatiha nga daldi ñaan foofee wala ba ngay jàng faatiha ngay ñaan ci biir njàngum faatiha ma wala diggante faatiha ak saar wa mbaa ba nga tolloo ci saar wa foofu yépp daal sib nañu fa ñaan bu sëggee rukkoo itam rukkoo ba sàbbaal rek lañ ca sopp waaye sib nañ ca ñaan ba tey boo toogee di bëgg a taaye moo xam taay jëkk la moo xam taay ju mujj ji la laata ngay tàmbalee taaye sib nañ ngay ñaan taay ju njëkk ji moom daañu sib nga ñaan ci ak lu mën di am taay ju mujj nag mooy ja nga xam si ngay sëlmale moom gannaaw boo taayaa ba noppi ba julli sonante bi lañuy sopp nag nga door a ñaan waaye daañu sib taay jooje nga xam ne mooy ji mujj ca ngay sëlmale laata ngay taaya nga ñaan ba noppi nag door a taaya loolu ba tey ak sib la da ngay taaya ba àggal ba julli jonante bi ñu door a sopp nag nga ñaan diggante nag ñaari sujjóot yi moom mënees na caa ñaan ba sujjóotee benn siggi mën ngaa ñaan ci diggante boobu nga xam ci ngay sujjóote sujjóoti ñaareel ba mën nga caa ñaan sib nañu sa ilimaan wax asalaamaaleykum fekk nga doon ñaan sak ñaan àggut nga di ko àggalee door di sëlmal dañoo bëgg rek bu sa ilimaan sëlmalee nga topp ko daal di sëlmal waaye jàll di ñaan nag door a sëlmal sib nañ ko fu ci soppee ñaan moo xam ca taaye ja la moo xam ca sujjóot ba la moo xam diggante ñaari sujjóot ñi la dañoo sopp ñaan nga wax ko ci suuf te bañ koo biral jëmmi taaye ci bët lañoo sopp nga wax ko ci suuf nga biral taaye ja wax ko ci kaw sib nañ ko dañoo sopp boo jullee foo xam ne mën ngaa dëpp sa jë rëppee say loxo ci suuf nga jonjonteeg suuf moo gën a tegtale ak toroxlu ak màggal sa boroom lim ci ko wax ne sib nañ ko mooy sujjóot ci lu bokk ci la mu sol ñu xalaa mal boo sihii yére nga sol na le bu dee daraa wala lu mel ne daraa nga sujjóot ca lu ca bokk mel ne lafu daraaja wala nga lambaayu jël lambaay ga lal ko sujjóot ca lim ci tegit mooy taal gi nga laxaaroo ci sa bopp dafa laxaaru ci sab jë benn laxaaru mbaa ñaar nga sujjoo taale ko loolu lépp moo nga sujjóot ci ab tappi wala ab sajaada wala ak basan gu nooy te amoo ngant sib nañ ko su fekkee ne nag tàngaay wala seddaay wala sëb jë moo am ab gaañu gaañu boo ko tegee noonu rek moo metti ci yow moo tax nga sujjóot ci loolee nga sujjóot kon sibuñu ko aw xalaa saw bin jéem wax wala mu sujjóot ci kaw malaan bul defee ne mook xalaa mal boo si dañoo bokk mel ne kon daa wax waxaat alaamal bas yi da caa jublu nga sujjóot ci lu bokk ci la nga sol ci sa yaramu bopp aw xalaa sol bi nag mooy lu nga jëloon rek beneen malaan teg ko fu ngay sujjóote sujjóot ca nga seetlu leemu wax ne mu sujjóot ak lem lemu kaalaam kaala nga lemu benn yoon mbaa ñaar laxaaru ci jëba mu sujjóot taale ko nga bañ koo jaawaleeg kaala ga laxaaruwul ca jëba su fekkoon ne jëmmi kaala ga laxaaruwul ca jëba daa mel ne jëmmi kaala ga dafa laxaaru ca jubbu bopp wax loola nag ba sëggee di sujjóot loolaatee jëba tegu ca fañ ñi sujjóotee kooku moom julli ga day yàqu bu dee nag fa ngay jullee moo xam jàkka la moo xam feneen la dañ ko xëslal sajjaada mbaa basan yu nooy dañu taamu nga dem di tibb suuf di def foofa ngir ne bu may sujjóot sujjóot ci say boo rek sujjóot ca noonu ñu fa lale sajjaada yaag basan ya waaye nag bu fekkoon ne yaa génne sub tappi mbaa sag basan ca bitti fu yaatu foofee moom dañu bëgg na ngay lale sa jaada ba mbaa basan nga nga bàyyi fa ngay dëpp sa jë ak fa ngay rëppil say loxo moom nekk suufu kese nga bañ faa lal dara bu tàngee nag mbaa mu sedd nag mbaa mu ñagas nag ak yu demee noonu moom mën ngaa lal fépp ba lalaale fu ngi dëpp sa jë dara nekku ca boo tolloo ci rukkoo daal di sit nga defa jàng lu bokk ci alquran booy sujjóot sit noonu rukkoo moom sabal rek amul sax ñaan sujjóot nag moom mën ngaa boole sabal ak ñaan waaye taamuy nag ngay sujjóot di jàng foofa alquran tax hadis ba dane muhiitu an aqra alqurana raakihan aw saajida dañ maa aaye may rukkoo di jàng alquran mbaa may sujjóot di jàng alquran ib nañ am genn ñaan goo xam ne mataliwut te nga taxoo ko moom rek di ko ñaan dañoo bëgg boo ñaanee lii bu ëllëgee nga ñaan leneen li ki boo ñaanee njëgal su beneen yoonee nga ñaanaale wërsëgu yaawu lew beneen yoon nga ñaan yàlla defaral la sa bopp mbaa sa soxna mbaa sa doom beneen yoon daal leneen lu aju ci wàllu àdduna mbaa àllaaxira ndax yàlla moom lépp la am lépp lay maye ci mbaaxam ak ngëneelam kon nag nga yem ci genn ñaan dong daal goo xam ne mataliwut lépp lépp di ko ñaan saa yu nekk rek sib nañ ko ndax bañ nga xatal ngëneelul yàlla li mbaa nañ ko xewoon nga bari la ñaan ñaan googee te fekk dëppawut ak li yàlla namm ci yow nga ne nag ñaan naa ba tàyyi yàlla mayuma mel ne ku bëgg a xarab yàlla loolu moo tax daal bu dee genn ñaan koy taxoo na matale lépp lépp ëmbaale lépp lépp bokk na ci ñaan yi gën a matale ëmb lépp lépp nag dañ di ko boole ci ñaanuk taaya ni ki booy jàng ar risala allahumma inni as'aluka min kulli xayrin sa'alaka minhu muhammadun nabiyuka wa rasuluka sallallahu alayhi wa sallam wa a'udhu bika min kulli sharrin istahadaka minhu muhammadun nabiyuka wa rasuluka sallallahu alayhi wa sallam mooy su boroom maa ngi lay ñaan nga may ma yépp yi woo xam ne sa yonante bu baax ba muhammad masala ko ñaan te muy loo xam ne jombul ci man maa ngi lay ñaan nga musal ma ci yépp ay woo xam ne sa yonante bu baax ba masala ñaan nga musal ko ca mayit maa ngi lay ñaan nga musal ma ca di julli di gestu te gestu ga amul lay tax gestu bu wér wér gestu googu sib nañ ko bu dee aajoo tax nag nga gestu sibuñu ko li fekk nag ngay mooy xibla bu wér-wér gestu googee luñ sibla waaye julli ga yàquwut soo gestoo nag ba sa jëmm jëpp wan gannaaw xibla moom julli ga ci boppam day yàqu nga war a julliwaat sib nañ ngay julli di ràbbale say baaraam mbaa ngay foq say baaraam njoofeerlu mooy coppooral di julli di coppooral waaw toogin sib nañ ko jatu mooy jël loxoom teg ko ci ak sàll wetam na mu taxawee mu jël loxoom teg ko ci sàll wetam mooy jatu sib nañ ko julli gëmm te amul lu ko tax di gëmm du bañ a xool lu araam du bañ ngelaw li fatt ko mbaa dara sib nañ ko te bu fekkee ne day bañ ngelaw li fatt ko mbaa bañ a xool lu araam moom gëmm ga mooy lañ ko digal sib nañu ni mu taxawee mu yëkkati benn tànkam taxaw ak benn rek lu may nag daa julli julli gu yàgg yàgg ba mu def noonu ngir xaw koo noppaloo ba tey it jël ndëggulee teg ko ci kaw ndëggule ca des sib nañ ko ba tey na mu taxawee mu sësale ñaari tànkam mel ni ku ñu jéng sib nañ ko dañoo bëgg mu yàng ñaari tànk ña ñu soree di julli di xalaat mbirum àdduna waaye nag teewu koo xam la muy julli kon def na luy sit luy wàññi tuyaabaam su demee dem na ba xalaati àdduna yi tax xamatut te lam julli woon dara dara xamul sax nu mu koy defare kon julli nga yàqu na na ko dagg te tàmbaliwaat ko su fekkee nag xalaat ya bari na waaye teewu koo xam la muy julli waaye nag bari nga am na bu wér a wér moom bu ko seetloo lam ci ñàkk a teewlu di xalaat ci àdduna jéggi na dayoo la muy xam-xam la muy julli sopp nañ mu baamu ca waxtu wa ndax mu amug teewli ci baamu ga bu xalaati àdduna yi bari woon ba muy nattable li mu ràkk yam julli ndax benn la mbaa ñaar mbaa ñett itam du tax julli ga yàqu dañ koy wax ne ko seetal gën a wóor nga jàpp ca booy sikki sàkka bennam ñaar jàppal benn booy sikki sàkka ñaaram ñett jàppal ñaar du tax julli ga yàqu bu doon julli nag di xalaat ci mbiri àllaaxira moom dara nekku ca sibuñu ko waaye moom it nee nañu xalaat ga muy xalaat ci mbiri àllaaxira su demee ba tax na xamatul dara ci julli ga kon moom it faw day dagg te tàmbaliwaat di julli def dara ci poosam mbaa ci lafu mbuum mbaa gimiñam loo xam ne na koo taxa jax-jax yi sib nañ ko bu dee ci gimiñ gi sax moom bu ko dee teye mën a wax araf yi moom day yàq julli ga di julli di fooye ab sikki moom mbaa muy fooye leneen nit ki jaaro bam takk ci loxoom sib nañ ko ku julli ba ci biir mu tifli soppuñu mu wax alhamdulilahi rabbil alamin di sant yàlla ba daa def moo gën ku julli xibaar ko xibaar bu sedd xolom it dana ñu sib muy sant yàlla ngir loolee sedd xolom na wéy rek ci julli ga ndax julli gi ëmbaale na cant ak leneen ak leneen bu jullee tifli am ku ko ne yarhamukallah ndokkeel ko moom nag muy junj ak boppam mbaa loxoom di ko wan ne ko delloo naa la ndokkeel gi julli gi tax mënuma wax loolu sib nañ ko nee nañu nag boo doon julli am ku la nuyu mënoo koo fay ndax julli ga dañ lay digal nga junj fay ga moo xam sa bopp ngay dag-dagale wala sa baaraam nga junj ne ko rek fay naa la moo xam julli nga nekkoon farata la moo xam naafila la junjoon ko ne ko fay naa la moom lu ñuy digle la di julli wokk yaramam su ko ngant waralee te bariwut kon duñu ko sib dara nekku ca waaye nag fekkee da ko neex rek mu def ko lu muy néew néew du tee ñu sib ko su wokk ga bari woon nag moom daldi yàq julli ga ndegam moo ko tey su fekkee nag teyu ko ñu digal ko mu sujjóot ba'da salaam di julli di muuñ maanaam reeree koo xam ne amul kaddu su bariwut daañu ko sib ndegam moo ko coobarewu nga xam ne du ko fàtte du dara waaye mën ngaa digg ni ko salaabali takkee muuñ moom su bariwut te kooka coobare wuu ko dara nekku ca ak sib sax du ca am waaye nag su néewee te kooka moo ko coobare wu itam ñu sib ko mu des nag su bare muuñ moom bu xase bari faw mu yàq julli ga kooko tey ko ak kooka ñàkk koo tey ñoo ci yemoo su digg doomoo nag nga xam ne néewut bariwut su fekkee njuumtee tax kon na sujjóot baax de salaam su fekkee moo ko teyit mu daal yàqu mel ne rek su bari woon sib nañ mu xam ne li sunoo ci julli gi boole dañ koy boole ci suñu wees ya taxum bañ koo def lépp lu ñu wax ne sunna la ci julli gi rek dañoo sopp mu def ko ndax bëgg tuyaaba mu tey ko bañ koo def nag sib nañ ko xam nañ ne lii sunna la suñu sedd li weesu na wees àgg na ci sedd li mu tey ko bañ koo def nag daañu ko wax ca kanam dafa am yaay wax am ñu ne julli ga day yàqu sax am ñu ne du yàqu la ci gën a wër na mooy julli ga du yàqu day jéglu rek yàlla boromam ñaara kay jëkk lañu wax ne gannaaw faatiha nga teg ci aw saar mbaa lu wëcc aw saar sunu la mu ne nag waaye nag ràkkab ñetteel ba bu dee timis wala ñaar ràkk yu mujj bu dee tisbaar mbaa takkusaan mbaa gee sib nañu nga jàngale ca aw saar ngay jàng rek faatiha yem ca sib nañu di julli am aajo tax ngay tàccu mel ni am ku lay woo mbaa ku fëgg ngay tàccu di ko won ne ko ci julli laa nekk lañ taamu daal te addis ba digle ko mooy kuy julli am lu ko dab lu mu bëgg a xam le ne ci julli laa nekk mën mu caa àddu na wax rek subhanallah na addis ba waxee nag ne man naabahu shay'un fi salaatihi falyusabbih teg ca innama tasfiixu naka tàccu li nisaa yi ñel na jigéen ña bu dee yoonu alimaamu shaafi yi dañuy jàpp ne innama tasfiixu li nisaa yi mooy bu dee jigéen moom day tàccu te du wax subhanallah déggilu waa maali nag mooy innama tasfiixu li nisaa mooy jigéen ñi ñooy faral a def loolu waaye du luñ waroon a def mel ne kon ak ŋàññ la waaye du tàgg waa Malik moom dañuy jàpp ne kay julli lépp loo xam ne teena koo mën a wax ne daay julli muy góor muy jigéen na wax rek subhanallah bu doon aali du aju ca jëmmi julli ga itam na wax rek subhanallah waaye niki sa ilimaan toog ci ba mu amee rakk bu njëkk wala toog ci mu amee rakk bu ñetteel du timis loolu aaja la da koy wax subhanallah wala ngay julli am ko na romb sa kanam it mën ngaa wax subhanallah ndax mu xam ne yaa ngi julli bañ a romb sa kanam